ci kanamu ci kanamu attekat bi ah waaw ah, je pense que renvoi mun xalaatuñu renvoi parce que procureur dégg nga li mu wax hmm? procès bi avocat yi wax nañ ñëpp wax nañ procureur li mu wax leer na waaw il a requis par exemple 6 mois la wax ak un mois ferme ak euh, aussi amende 50 000 jàpp nañu bon ñun daal am nañu euh, njort que ne juge bu waxee aussi dina ut clémence daal di libérer Ahmed Aidara loolu la ñu loolu la ñu ñu jàpp daal waaw mais waaw mais sam xam nga je pense que ne àtte bi doy na ñoom doy euh, lii am Sénégal jaay doole la manifestation bu buñ koy wax dañ naan la fii la ñuy wax manifestation nga ñëw ci lee manifestation bi ñu jàpp la mais manifestation bu ñu wax ne bi nga amee place Obélisque nga génn sa kër Guédiawaye mais ñu jàpp la fekk ñi ñi seen buntu kër jàpp leen kooku yaakaar naa ne bu ñuy wax juste am na fi dañuy ay ay ay ay ay ay waxu yu taxawul la waaw li ma li ma jàpp daal mooy euh, na justice bi libre exécutif bu mu teg loxo ci justice bi parce que lii xew ni Sénégal xam nañ ne lii carrément nekkul yoon nekkul justice jaay doole la ah jàpp ay opposant jàpp ay tête de liste tëj leen ci kaso bi euh, loolu daal je pense que ne lu ñaaw la ci démocratie Sénégal mais li ñu mën a xaar daal mooy juge bi la ñu mën a xaar mu wax clémence am te jàpp naa ne en tant que ku am njort ci justice Sénégal que juste bu waxee dana libérer Ahmed Aïdara mu jibbi këram comme ni ko waa Guédiawaye bëgge comme ni ko doomi Guédiawaye yëpp bëggee incha allah. waaw mais euh, le 29 moom euh, droit la droit constitution constitution moo ñu ko may moo ñu may que nit ñi war a dem manifestation war a war a war a war a war a war a yëgle je pense que buñ bëggee jàmm ci réew mi dañ koy mais le 8 jaar na fi les gens ont manifesté librement sans problème. Ah, ñu xëy procureur na affaire rebelle moo fi am jàpp nañu rebelle nangam da doon jaay xar xaw ma affaire kenn nañ pet quoi léegi lu ñu bëgg mooy nañu autoriser marche bi Sénégal am jàmb nit ñi manifester li ñu war a manifester nit ñi dem ñibbi bourement mais lu procureur wax mooy 6 mois do 1 mois ferme ak amende 50 000 francs kenn ku nekk loolu la wax jërëjëf euh, ñi mu àndal euh, moom 6 la wax do 1 ak amende 50 000 ku nekk waaw man bi procureur waxee nag ci laa génn salle bi Euh, fekkee mu juge bi li muy wax euh, li mu daanelee kon ça veut dire tey jii mën nañ jàpp ne tey ji bu fekkee Ahmed def na un mois ci kaso bi dañ koy libere mu jeex tàkk bu fekkee nag deful un mois ci kaso bi aussi euh, bon li ko li koy dese li koy dese du bëri mais jàpp nañ ni ak la clémence du juge aussi mën nañ am njort bu rafet ne mën nañ ko libéré mais man je m'en tiens ak li procureur wax mooy 6 mois dont un mois ferme ak amende 50 000 ku nekk parce que ñoom leen toppee mooy trouble à l'ordre public manifestation bu ñu interdire ñu def ko loolu la ñu inter loolu la Ahmed Aïdara waaw Ahmed nag aussi moom fi mu taxawoon na taxaw ba léegi euh, en tant que maire de Guédiawaye xam ngeen Ahmed aussi euh, dëggal boppam ci kanam wax na moom li mu def aussi li nekk ci procès verbal aussi li ñu ko bindal d' accord ci ndax waxu ko mais li ñu mën a jàpp mooy 6 euh, mois la lañ wax. dont un mois ferme ak bi du collectif ñoo lànk mais dañ fi ñëw en tant que sénégalais en tant que habitant de Guédiawaye aussi ngir naqarlu li xew pour rappeler en 2011 Macky Sall dafa yoroon pajaasam di wax ni dañoo war a manifester en 2011 Macky Sall dafa wàccoon ne nit ñi il faut que ñu ñu wu donc bu ñu gisee ba 2022 tey. ñu kidnappé ay citoyens yoo xamante ni ni ñu leen kidnappé ñun jàpp nañ ni du yoon en l'occurrence des autorités dans ce pays comme le maire Ahmed Aïdara comme quatre autres députés de ce pays ñun jàpp nañ ni loolu du ñoon te ñun collectif ñoo lànk comme bokkuñu ci benn parti bokk ñu ci benn coalition ñi ngi ñaan le président Macky Sall ne ko mu autoriser marche moo gën a yomb ci réew mi moo gën a am apaisement ci réew mi que tey ñu ñàkk ko parce que moom 2011 da ko daan dox di ko waxee jàpp ni dëkk bi fi mu ne nii climat social bi li mu soxla mooy ñëpp dellu ci jàmm parce que kenn bëggul Sénégal takk ñi ngi ñaan le gouvernement et puis la magistrature de ce pays di ko wax gouvernement wala réew à 80 pour cent jàmm ji dafa nekk ci justice bu Sénégal kon ñi ngi wax justice boobu ni suñu xel ñàkk a del ñuy gis ni la justice bi day doxee à deux vitesses loolu ñi ngi interpeller magistrature bu Sénégal di leen wax ni la sénégalais yi ñi ngi leen di delloowaat di leen bàyyiwaat xel que jàmm ji yéen da ngeen cee am wàll boo xamante ni gis nañ ni tey bu ngeen taxawee ni ngeen war a taxawee gis nañ ni Sénégal dina am jàmm kon ba ñu waxee ak magistrature wax ak gouvernement bu Sénégal ñu ngi wax nag ak opposition bu Sénégal di leen wax yéen opposition bu Sénégal ñu ngi leen di wax ne leen Sénégal dafa soxla jàmm à l'instant qu'on vous parle ñu ngi leen di wax ne leen ñun collectif ñoo lànk ñu ngi leen di wax ne leen Sénégal dafa soxla dal fii mu toll nii opposition bu Sénégal gannaaw ba ñu duutee baaraam quatre-vingt-dix pour cent problème yëpp c'est Macky Sall c'est Macky Sall parce que am na loo xamante ni da koo nangu woon 2011 te bëgg koo nangu ren loolu loolu kenn mënu koo nangu justice mi ngi ci loxoog njiitu réew te gis nañ ni justice amul ci mbir mi waaye am nañ droit wax ak opposition bu Sénégal ñu leen Sénégal dafa soxla jàmm ñu leen Sénégal dafa soxla dal ñu leen Sénégal pour l'instant soxlawul xeex ak xuloo Sénégal lan la soxla jàmm boo xamante ni sous raison bi boo ko xoolee ni muy tàkkee ñun bëgg ñoo yegg foofu encore une fois ñi ngi ñi ngi dox ñun collectif ñoo lànk temps yi pour dajale tous les forces vives de la nation commencé nañ ko en l'occurrence Africa Jom Center en l'occurrence ONG 3D Ligue des imams du Sénégal euh, euh, le cercle des intellectuels du Sénégal ñi ngi dajale tous les forces vives de la nation ngir wax na leen ñun collectif ñoo lànk ñi ngi tàllal loxo ñëpp pour ñu artu parce que ku artuwul wul daga arte te fii Sénégal toll dafa soxla jàmm fii Sénégal toll soxla la soxlawul xët-xëtloo soxlawul jaayante soxlawul meroo soxlawul rayante gannaaw ñu fàttalee magistrature gannaaw bañ fàttalee Macky Sall muy président de la République du Sénégal ñu ngi fàttali la xalif général yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal heure bii heure wax la parce que man damaa fekkee événement mars yi man le coordonnateur de ñoo lank dama bokkoon ci ñu teewoon ci bi sëñ Mountakha yónnee sëñ Bass Porokhane sëñ Muntaxa bi boo yónnee sëñ Bass Porokhane man ci ñi teewoon laa kon man mën naa wax ci loolu bam ñu yónnee ñaan ñu dañ koo may kon nag ñi ngi ñaan pour l'instant xalif généraux yi soxla nañ seen i kaddu parce que Sénégal ci guuta la jëm te guuta googu bu ca jëmee lii dootuñu ko mën a di taxaw di waxtaan wala di demalante di dikkalante parce que ku dem libi tey libi ku fa dem amul jàmm kenn mun a lekk kenn mun ta naan te ñun soxlawuñ loolu que ce soit du pouvoir que ce soit de l'opposition ñi ngi woo tous les forces vives de la nation de ce pays ñu le collectif ñoo lànk di leen wax ne leen ñi ngi leen di tàllal loxo ngeen ñëw ñu artu parce que bu ñu artu danañ atte te booba ñu atte mën nañ ne kenn du tal sa morom te Sénégal soxlawul góoto googu kon ñi ngi interpellé magistrature bu Sénégal nañu bàyyi ñi ñu ñibbi jàppee wuñu leen ci lu ñu gëm ni yoon la parce que ku mel ni Ahmed Aïdara koñam la nekk te marche bi mi amoon place de l'obélisque te loolu gis nañ ni du dëgg du yoon Macky Sall en 2011 buñ ko buñ ko xañee woon nii mu xañee nii du du bokk ci ay élection bañ koy ba muy gagné kon gannaaw loolu ñi ngi woowaat ñëpp à plus de retenue à plus de calme à plus de de paix parce que ñun jàmm lañ soxla kon nag ñun la collectif ñoo lànk gannaaw bañ jëlee suñ tànk di woo force vive yëpp pour ñu woote jàmm ñu ngi doxaat ci loolu di interpellé waat xalif généro yi di leen wax seen kaddu fi mu ne nii da ngeen ñoo ñaanal ñu may leen waaye soxla nañ fi mu ne nii seen kaddu parce que askan wi yéen la ñuy déglu askan wi ñi ngi leen di bàyyi xel te bu ñu demee mi tàkk kon kaddu yi am na foo xamante ni fa lañ ko gën a kon ñoom ñuy suñu kilifa muy les xalif généraux sëñ Mountakha sëñ Baye Sy Mansour ak ñeneen ñëpp yaakaar nañ ni li ñu gëm ñoom jàmm Sénégal rek lañ bëgg kon yéen suñuy kilifa ñi ngi leen di ñaan ngeen artu ci lii parce que kenn gënul habilité ci yéen ngir dox ci lii ci wax ci li ñi ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp te gëm nañ ndax opposition bi ndax opposition bi yéen ndax rafetlu ngeen seen doxalin jamono ji ginnaaw bu fekkee da nga leen di woo ci jàmm non ñi ngi woote jàmm parce que man mënumaa concevoir ku mel ni aussi Barthélémy Diaz il faut que ñuy waxante dëgg Barthélemy Dias marche bi vendredi la jeudi nga taxaw ne na ndaw ñi génn vendredi bi tey nga dem benn émission daan ne dañ maa waxoon dañ may jàpp moo tax génnu ma nga bàyyi ay ndaw génn bañ jàpp leen loolu du dëkk du yoon boo demee bay woote marché ne da ngay génn da ngay génn ànd ak ña ñuy jàpp man loolu laa gëm man boo demee bay woote marché tey parce que damay wax chaque jour collectif ñoo lànk yàgg na fi woote ceeb bu seer diwliñ bu seer ak jund bu seer kenn du leen wi gannaaw loolu lépp ñun dañ koo teg ñaari coalition yu jàkkaarloo la te ñu gis ni état bu Sénégal deful yoon ci mbir mi mais am nañ droit fàttali tamit ne ñee ñoom bu ñuy dem bay woote ku mel ni Barthélémy Dias na dëggal wooteem na dëggal wooteem ba bu mu bàyyi ay xale génn ñu jàppale moom mu toog këram te moom moo ko wax te TFM kon loolu moom xamoon na ni du génn ba ba pare ay xale ñu génn kon na ci kaw loolu ñu ngi ñaanaan a plus de retenue à plus de calme di wax état bu Sénégal réew kenn du ko yore xët-xët non at réew no ñun ñun ñun bokkuñu ci benn manifestation parce que ñun société civile la ñu woote ñun nous ne sommes ni du pouvoir ni de l'opposition ñun fi ñu ne fi ñu féete mooy fi askanu Sénégal féete ñun foofu lañ féete askan bi li mu bëgg jàmm la bëgg parce que politiciens yi ah, ñi ngi nekk cinq pour cent bu réew mi takkee askan wi ñooy am problème kon ñun liñ leen di woo mooy gannaaw bu état bu Sénégal liñ ko waxee li koy wax ba pare ñu ne opposition bi moom it part bi mu ci am ci jàmm na ko woote bu mu yéeg rek yaakaar ni moom fa mu taxaw war na faa taxaw na wàcc te xam ne jàmm bu ko doxul moom mënul jot ci la jàmm ci ci lu dul jàmm ci nguur wala mu jot ci lu jàmm ci li mën a jot parce que élection locale yi passé bi ñuy gagné dañ koo def ci jàmm ak salaam ba tax ñoom ñu gën a gagné kon ñi ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di interpellé waat xalif généraux yi di leen sant yéen la presse di sant Sénégal yëpp di woowaat ñëpp ñu ñëw dajaloo ci collectif bii ñu woote ñun ñoo lànk société civile bi yëpp dara daja pour ñu dox jàmm sinon ku artiwul da nga àtte te boo heure àtte bu jotee Sénégal ay en tàkk jërë ngeen dafa am loo xamante ne ñun taxu ñoo jóg ñëw mobiliser fii xeex xuloo yooyu taxu ñoo jóg ñun lu ñu bëgg mooy mu bàyyi sunu maire te yàlla tax maire Guédiawaye na ko bàyyi ndax Ahmed yàlla moo ko fi teg Guédiawaye ñoo ko choisir teg ko fi ñu loolu lañ bëgg ñëwuñu pour xeex ñu pour xuloo waaw dañoo ñëw pour taxaw après suñu soutien suñu maire parce que taxaw nañu tamit te jàppale ñu te bëgg na loolu ñu tax a jóg quoi ñu ko tey nga ñu lu ñuy def loo leen di def non après xool ñun jeunesse bi nga xam te ne ñoo tànn amee teg ko fii ñun def loolu rek la quoi parce que parce que ñun ko nangu duñ nangu jël suñu maire tëj ko suñu dëkk suñu yoon loolu duñ ko def bañ egg foofu dañ koy bàyyi si nii wala si ne ndax mooy suñu maire saa waay Guédiawaye Ahmed moo nekk seen xol 6000 voix la gagné Ahmed euh, rakku Macky Sall rakku président 6000 voix te ëpp na ko sax ñoom ñoo teg seen i ki rek te élection bu amoon mu gagné waat leen Guédiawaye Ahmed a nekk seen xol moom lañ bëgg ñoo ko choisir sept ans laa la wax mu si terrain bi di liggéey nekkul koo xamante dañ ko ñëw rek forcé ko nit ñi dafa liggéey ba am lu mu doon Ahmed mu ànd ak coalition mu ànd ak keneen doon gagné Guédiawaye ndax da ko liggéey loolu voilà loolu loolu rek la quoi merci